mene juɗmene ɗo haade ɓesal ɓe daga maɗa mo konkoŋol bonduɗo mo dadi bo to dadi konkoŋol bonduɗo ñe koko kalla ñe jibril ko andal mouhammad mota mone wa faftawtaha jibril فقيل من أنت قال أنا جبريل ومن معك ومن صلى عليه أنا قد إلي إليه وقد إلي إليه نعم الأخو ونعم الخليفة فنعم المجيء جاء بقوانه بكوان وتبايان قيدك متويك نويك بنن فيصلت الأمين فيتصلت الدمين سماعا جبريل معه الأنبياء أفتدقه آدم ثم عيسى ثم نوح ويوسف زكريا ثم هارون ثم موسى وإبراهيم وهو القديم مدقاؤه جلد فيها بال جلد فيها بال داري فطلقه آدم ثم عيسى ثم نوح ويوسف زكيا ثم هارون ثم موسى وإبراهيم والقدين مرقاه نقول كتندو بمنك وني فطلقه تكتندو آدم آدم آه، ثم عيسى ثم عيسى ثم نون ويوسف ثم هارون ثم موسى وإبراهيم نيو نيو نيو كتندو moo fi ci asamaaw su njëkk aada aadamaa ngi jooy bu xoolee day jooram bu xoolee càmmoñam jooy tax doomu aadama dara ñu du te dara lu may loolu doomu lim ñu dóor kenn mënu koo wax te tudd yi sax wax lem dox ma ne doomu aadama tudd yi wax na dem doo lum doo doon ne ne net nit nit lu wuy fi nii mooy lum nitu faam lum nitu di lum nitu na kenn du ko waatee dafa am lu mu niru mbane moo tax ñu ne ko nit dugub it kenn tuddagu ko dugub rek lañu wax duut ko am na lu mu doon moom de yooyu yaar kenn tuddee tudd jege moo tax lu jógee def daf koy daal di niru te lu niru daf yàlla ne wa ma xalaqtu l-jinna wal insa yala man yala ma gën a jege jaabi bu ma xolam jagal omar wala tiga hadisu musa israa naaran فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس عاجد هذا دين هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فلا نادك إنك بالواد المقدس وأنا ذاتك فسر لما يوحى إنني أنا لا إله إلا أنا فبني موسى تفشي أوصالا nit ñi tam toog leen moo wuti kuréel duñ jaaloo ba mu demee ba fa sawaala garab ga ne ko woo Muusaa duuma garab duuma garab yàlla laa ka sonni ka sonni lépp sonni ca garab ga muy ab mu ne maa yàlla ca baaxoowul wax boo ko ka baaxoo wax su ko ca sonni mu wax la wax laa du dëgg وتفني موالا بعده شكر كريم أن يطلن كاني شكر يب لا إله إلا هو له الأسماء والحسنى لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا هو moom la wax kooku ci suuf xamut anam mooy aami nit ñi laa ilaaha illa bu jënoowutoo moom mel ni ma nga ko làmb li nga gisut boo ko ngëbee loolu nga ngeen ñuy di waaw gisuma ko waaye mi ngi ne moo tax ko anta gisuma ko waaye ngëm naa ko xaafiyaangoog mooy moo tax wu ñee daayira moo tax gaa ñi wax nañ anta ibrahima nana ko fa taxwal min innaka anta samiul alim hayata nana ko in tuasibum fa innahum ibadukum wa in tafidum innaka anta al-azizul hakim wax na ko anta dégg nga ko waaw Suhaybu na ko xaaral nag dégg nga ko na ko anta rabbana taqabbal minna wa bayna qawmina bil haqq wa anta mughalana ko anta turizuki mantafawata di mantafaw anta wajina kukuwana ko anta syakriyawana ko anta nana bila tafazifa dan wanda kayo warihin yayawana ko anta nyom jawana ko kimi nyopun dan ko wala toa mena wala toa mena mara takasalana ufana wafidana walamna anta mulana kontuna lakamil kebirina Mwaka, siyar dal halkwana ko ijagagalik. te ñun ñëpp ñëpp woote nañu xam yàlla ku ne wax nga ne xam naa yàlla wala ñaan nga ko sax dama ne ñëpp a ngi koy ñaan xaam yi ko iyaaka yow yàlla na bu du jaamu xaasi ne ko wa iyaaka da yow yàlla na saxeenu lan sa koo jaamu ñun day mënu noo jaamu yaa nuy jaamu yaa nuy jaamu waaye daal ihdina siraatal mustaqim siraatal lazina anamta alayhim yal na ñu jubal la demante jigéen mu wax la ko demante a ñooñu ñoom la yàlla xéewal yal na yàlla boole मुलिसति यहया अखैसा शायद हमासी यार हमासी या तेरी ओदुहु तो मेन तेर इधर यार देंगे सोला नहीं को सब मानतो सोला नहीं को मानतो मानतो वो विंच वो नहीं Barhaw bi umina rasulal moom lañ ci bind ñu tuddee ko manto takrim ñaareel ñu ñuy Ni ko ñu soo ko manto bind ci ndey yo boobu maata naa kay daara maatan li aalamin hasamaati ñetteel ñu solal ko manto bind ci yaa yoo gabi naa faa na ilaa jarfi na dinaa jaanaar waaye naa faa naa kaay di ma bëgg yoon na siirin hasamaati ñeenteel ñu solal ko manto suñ ci bind ya ya zeki alam yuri zeki antara ala abdi ala abdi hükmâ kitaba. Hatamâki cûmel nüfeyi komando bildike inna lâha ve melâkatu yuşadona ala nebî. Ya ya dekin amanu sadu aleyhi ve sallim ve sallim. Hatamâki cûmel nüfeyi komando lungi bindi. mooy laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ada maa fi juróom ñaareel ñu solal ko manta luñ jëfi du mooy subhaana lasi asra bi abdihi ladan min almasjidi haram ila almasjidi laqaa lasi baran haadahu linuriyahu min ayatina innahu samiun basir ada maa fi jëkk bàyyi mu ne mu nga romb ña ngay soow naa subhaana sil mulki wal malakut ada maa fi ñaareel ña nga naa subhaana sil isidi wal jabarut حتما سنيتين لنا فبعد الحي الحي القيوم الذي لا يموت حتما سنيتين لنا سبوه القدوس رب الملائكة والروح حتما في الجوم لنا سبحان من جمع بين بين السد والنار حتما في الجوم لنا سبحان القدوس قال بكل شيء خالق وقال بكل شيء وخالق كل شيء حتما في الجوم لنا سبحان خالق النور سبحان خالق النور بايمون وحال ما تلقى سبحان ملاكي ملوكت يقولون moomunoon ñëw ba ci sidrutul muntaha foofa nag bàyyi mu ne mooy faranceeri koo suuf faranceer bu mag baa ngoog lépp lu bàyyi koo ci suuf foofu lay yem lu bàyyi koo ca kaw foofu lay yem foofu la mbiraa ci jibril nag moo tax woykat baa ko naa laqad sallati la saalu fi loolu i xal لقد جل أن يبلغ في وفوك المطايا ملك الله كفه رقاب الوافة بالملك moo tax xam-xam dafa li li gerte bëgg daal di ngeen li gerte bëgg moom la xam-xam bëgg da ngay wax fii wax fii mokkal lii mokkal laala la xam-xam bëgg nii li tool bëgg daal la xam-xam bëgg nii mu ñëw nag jibril ne ko nag uma mina ila lahu maqaamun maalum man de mënu maa yooyu fii mu ne ko fii fii de ko soppee di fasante ko soppee mu ne ko sa waaw yow yaay lu foofa lañ koy nag malaaka yaa ngi koy fab malaaka yaa ngi koy fab nag hijaab muy dem di dem ba ak fa ba mu romboo xaras ba mu romboo xaras la gis woo fuloohu te nasalul malaayikatu wóoloo bu foofa la ko yónente fekk mu ne fekk naa ko mu amee junne ci bopp junne junne ci bopp bopp bu am junne junne ci xar kanam xarkanam bu ne am junne junne ci gémmiñ gémmiñ gu ne am junne junne ci lamiñ lamiñ bu nekk am juróom ñett fukki junne ci luxa di sabal yàlla yàlla ne loxo mooy may naa ko xeetu moom sallallahu alayhi wa sallam mooy tanazzalul malaayikatu wa ruuhu fiihaa bi izni rabbihim min kulli amrin salaam mu ne maa ngay wéy nag baatam may bàyyi ko yi udulu Muhammad yaa Muhammad yaa habibi wutun yaa ci baatu Babacar ci baatu Omar maya gaañu bi fekk yàlla xew yàlla lamiyu ko neex mu wax te di yàlla lamiyu ko neex mu wax te de ma ngay wax te waaw lamiñu Babacar naa ko utunu yaa Muhammad utunu yaa bibi utun moo tax mu ne ca alquran danna fata dalaha xalaqa ba xawdini aadana baaxa ilaha bihi ma awha waaw ma ma xettal sama jàmba lu xettal waaw xettal day doo ko def lu may koo jege ni mën naa xettal koo jegewut sama gaañ mu ne xaaxa ila abdihi ma xaaxa te xettal ak yàlla kan moom du xettal bu muy wax sa kaw da koy xet fa ma ngay bàyyi ko ca lëf la jëm ca la rek noonu lay moom mu ne may dem di dem ba xàgg ci péer yàlla ba ma ne ana sama borom ñu ne ma sa borom dafay julli ma ne kaw ci ci yàlla génn ci meloo waxambaane ne ma yaa Muhammad آه، أي شيء يهدش مره لا لا من يكون أربعة مفمتا مجيب وطن تجمع لهم بدون لهم بشدايا بدون يكوشي قلب ما قلبي مدون لهم خم خمي ويدكوي مجيب بايا ما وخي وكنون فإذا هو وحنا نكي من شحن ناشر الأربعة يوتي يولد دي نكي نجلو سفرات جو ونخ لولو مويدو ما دام الجنة كي لولد تبخ jundu tubina ladon do jello no ko geji do ladon gela mo jello ko geji gela ladon sawara mo jello ko geji sa ladon ko mo jello ko mo jello mo dali def na kiro kiro ababa kal jay do la ko way ko si no ko no فما فتد العدو لكيف فإنه تقاصر عن حبيب عينك الجبروت فإنه تقاصر عن عظيمك الجبروت I Baba Mado. neighborhood <laughs> قبل لقائي Thank you. وما رميت إذ رميت ولكن لا رمى يلا وأنا جند كو بنا سنة شنة ولو من يلا ما شنة من يبوبو آيه دم في نفيا خيبا دم فوقله وما رميت إذ رميت ولكن لا رمى محمد بنا شنة شهود بنا شنة شبرر بنا سنة شيوم هنينين لخنا بغا شني Samba ja eh, jambara ja dafa xambaar yàlla ne subhanallah subhanallah ba ñëpp ñu ko dégg nga sànni booba la yow moo ma sànni wul woon booba maa sànni woon bàyyi ma ne nag yaari aay yii nag ngeen di seet mu ne yaari aay yii ngeen di seet nag mu ne yaari aay yii ngeen di seet yonent bi moom wa maa rambayte yi rambayte lañ ko wax kooku moom yonentu fa wone ne moom mën naa jeex baagal des yonentu mën naa dem ba ca yàlla mu ne abba ñun nag ñun dañuy jeex ba jeex de moo tax yàlla ne falam taqtuluhum walakin alaaxa lalahum mais ñu ndaw ñu nan rey leen leen yéen de yéen bi nga rey leen leen yàlla moo leen rey bi loolu amee nag sallallahu alayhi wa sallam foofu la yàlla doon waxe yonent bi nag yàlla ngay waxe yonent bi ne ko yow Muhammad laajal sa tuuta Muhammad laajal waamaan dakku maanaa laaj la ndekete woo géwél yi kat nit ñi def dëgg la déglu leen ndekete woo géwél yi nit ñi waaw xam nañ dëgg de ndax daf na fa yow yàlla yaa jox Ibrahima nguur wa taxassa Ibrahima qalilan wa ataytoo mulkan asim di ko yàlla ne fa laajal noonu la la laajee yow de yaa def Ibrahima mu dib xarit nga jox ko nguur wa ataytoo Muusa mulkan asiman wa kallamtahu nga waxee ko ca dóor yi Siinaa وتوازنت داودا وسقط ذو الجبال يكون نوية ذو كنيول مم داودا muri chala bubu bi kolam wadam ko shure mana ya ko jongul ko jongul go xamne ken muy ko ji hata ga de kala ko wayde watu wutu ko mo ke day ga watu len yo yo ya len ko defar yalla ne ko muhammadu day waxa muhammad qad istahatuka habiban wa maktubun fi tawrat habibul aman وأرسلتك للناس كافة بشيرا ونشير وصلت صدرك وولدت عنك وزرك ورفعت لك شكرك يا محمد وجاءت أمتك خير أمة أريد للناس وجاءت أمتك أمة وسطا وجعلت أمتك لا تجوز لهم قلت حتى يشهدوا أنك عبدي وأنك عبدي وجعلتهم ذواتي ذوات آخرين وآتيتك سبع المثاني لأوتي النبي نبيا خيرك وآتيتك وآتيتك قواتم مشهورة البقرة من تحت كنز الأرض لأوتي نبيا قبلك وآتيتك الكوثر لأوتي نبيا قبلك يا الله وآتيتك ثمانية أسهم في الإسلام والجهاد ድንቅ ወልጅበቱ ወሰሙ ወሰላቱ دمك وزود بما رونا يحمم كي وجاهدك فاتحا وخاتما يا محمد صلى الله عليه وسلم يلنك محمد الجيوة ما لن يخدر واجب لما لا يوم يوم ما لا ما لا دم لين قيش مفصفين لون دمك بندي موهو بلا دمك ويوني لكي بولي بندي بندي يوم تمالين شي يوني موسى دك يا الله دنگلين القرآن تغنق لقد آقامانو هم إلى قومه شي أوني تولين كيوتي خود وإلى هاد أقاوم عادا وإلى ثمود أقاوم صالحا نيب موسى منكو أن أخرق مكا من الشرمات لنور ينتبه منكو لتغرج الناس من الشرمات لنور دنكو قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم داني شير القرآن فيجان وهل من يوم نلن إني رسول الله إليكم جميعا يوكي yónni naa la ci ñëpp ma sippi sa bakkaar ma kubbi ma yëkkati sa daraja mais boole sa tur yeeg sama tur ku la tudd tudd ma ma def sa xeer ñuy gën di xeer ma def leen ñuy xeeru ma def leen kenn du xutba lu may dafay tudd yàlla tudd dafay tudd dafay seedu ne yàlla yónnent bi doo la di dar yi doon laa tudd ma def leen ñu njëlbeen ma may la faatitul kitaab mayu ko Muusaa mayu ma ko ma may la ma may la amana rasulu mooy xaadimu suratul baqara muy musu musu ma koo may kenn ma may la kawsara ma may la lislaam may la jihaad may la hijratu gàddaay may la weeru koor may la julli may la dënnu ko digli lu baax may la tere lu bon def la ngay faadimu def la ngay xaadimu mu amal loo bëggoon lii laa la war a may dañ daa wax ne dañ daa wax ne foofu yàlla waxu ko dara yàlla dañ daa wax ne foofu dafa dafa dafa yónnent bi wax ak yàlla kenn déggu ko boo dañoo gisul bàyyi mu nga noonu boobu loolu lañ ko wax boobu ngeen ko noonu bi loolu amee nag mu bàyyi kooka ñëw be dégg si fekk Jibril ba mu fekkoon mu ne ko nañ dem na nga wëri aljanna mu ànd ak moom nag ñëw wala aljanna booba la dëgg mu ne ko kaay seet toolam Xadijatu wa tool booye ca la dëgg pom ba mu ñëwee مي فاتي مدو موتا داو جيس ريالا لي جيجي ني جيس تيام دون مون فاتي مدو موتا دي نيو دون ينن تبي نيو لن تساني يتو مدو باي من هشاني يتو جون فوكي شا جون دون فوكي شا دون جون دون فوكي مينين موي واتو خام ين جون دون فوكي شا دون موي مينين جون فوكي شاني يم موي دون جون دون فوكي شاني يم موي دون شا دون تيو نتبي دون نام ماكا جم نشا يالا وانا موم يوانا موم لشا خيو خيو نيو te xam ne diggante yi matu saaniyetu loolu ku ko gëm ku gëm loolu amatul dara loo xam ne war nga ko weddi kay maa kay waaye nag weddi kii weddi dafay weddi fekk yàllaa ko bugg te jox waaye ma yëgal leen ne kuréelu foo xam ne déggu fa fu ngeen dégg coono rek wudul waa moo xam moom borom mos la ca xam ma borom wu ca nag همه یون مثلا همه یون نداره همه یون قرن موزه اون چه در همون دیکاری که شما لیو دیکاری که شما در نمویلو هم ندان یا قرن مثلا هم ندان یا قرن بوزه اون بین میگه ممکن میگه شدی تاری به تعرفان هست کنجی که کوئی مثلا دینه إيه، دو دو گو دو گو دو منتعم آکه باید یه ماری مواقع سدود القلوب نه ازادار دنیا دار نوکا وجیفتون يجاذبها فقلب تلك الكذب ولولا سكون العالمين لخيره رأوه إيانا ولداه خريبه ستوتنا جنجن جنجن أي درم أكي درجة كن جنو يلا يلا كي نبوت بلد مالي بغوخ سنتو باني ومن تفقها بلا تثوبي وصوت صوت فصوت فسخين سرين فاربي كفو جنجل زور من الجنجل وانا يقام قام بالبكر ديهي يامه قمقام قاد حول قاربة بداية ويتم هي بنقل في بعض لامه في دولا قوله شل المخالق جنان قايد أرجع سلاين نيا كادي فالكرب فالتسيب ذو القرباء في الأدي أيام في ذو فيلانا ومون يانون فيلو وتكرم لفيلو يقرأ حد قاسي قد قادر جيلاني نموه تفاوغن الدنن الحكمة بيات أول ما يدلع بقلب المؤمن النجم الحكمة ثم خمد في علم ثم باس ثم شمس المعرفة فيشير بعلم بنجم الحكمة ينشر إلى دنياه وباللوح وباللوح العلم ينشر إلى زهراه وباللوح شمس المعرفة ينشر إلى ربه شيخ عبد القادر الجيلاني موعد الغالي من يأتي في موجك في جفرة الدلان nañ ma hukumati ci la xeegee mbirum addinaam leer ak jantal leer ak weeru xam-xam ci la ñuy jàngee alaxira jantal xam-xam ak yàlla ci la ñuy xoolee yàlla. Cheikh Abdou Khadre Jilaani moo loolu taalibam jàppal boo nag boo nag ñun nañ wax ne alhamdulilah moo tax suñu waay dane tawatu tariqal xaw mi bi Mustafa al Kamil man man taxay naa yoonu góor ñi jëm Mustafa yoon yónantu ci laa taxañee yoonu góor yëpp yëpp taxañ naa ca samay taalibe nga xam ne tey jigéen ña ak góor ñi ñëpp ñu ngi bëgg seen dënn naa maa yàlla te fekk na tool demuñ fenn waaw fañ tool nañ tool nekk sa jëkkër di ko dawal fa di tëdd ca gannaawam lu ko neex mu nga lu ko neex nga defal ko ba dëgg bëgg sa dënn te wallaay gaañe balaa kenn demaa xam yàlla ñu jëlee dugal ay xalawaat nga dugg ay xalawaat di lekk di def ay xalawaat ba nga xam ne doo doo amee دولة ما يمدي خبره ويتجلى فيلم تجلى فيلم تكتب بالدماء هذا كذا جمع تارخ تكلا وحنا يننيو من سمت تكوف تالي بيبو تك موي موي موي نهاية دو بوي تكيا كود بوي تكيا فين هما هما هم سمت تالي بيبو لين تالي جب كونك alhamdulilah kon ñu war a sant yàlla ma ne kon ñu war li tari bi nag tawatuñ dara tari bi yaa ngi naa ñoo ngi naa ñu ndey duñ ñuy tudd ci rajo yi duñ ñuy waxal lii duñ ñuy waxal laa ma ne buñ waxal dara dañ ñuy tere dem gaañi buñ ñu tudd ci rajo bi dañ ñuy tere dem alaaji Ibrahima dafa feeñ ci kóoci dégg ko nandal Serigne Baye mu fëgg dënd ko moo nandal Ousmane Ndiaye moo nandal Yura Fall ñu ne du dëkk que mu sa gis lee ñu ne du fi amee duñ ko fi waxee buur yi taxaw ne duñ ko fi waxee sëriñ si taxaw ne duñ ko fi waxee tawalawa taal ba lakk Sénégal mu wéy mu wéy muy mu tëri andi doomi Modou Hadiye andi doomi Seydi Ba Seydi Maodo di Faaya andi Seydi doomi Batiye andi ñëpp oui dégg ngeen ko Abidjan oui ma xamul lii lépp mu am ko ngeen di xul naa suñ ñu tudd ci rajo bi hey buñ ñu tudd ci rajo bi daf ñuy teree dem. si Ndakaaru laa ko waxee. beneen année nag alhamdulillah. صلى الله عليه وسلم yonent ba ba nga xamee ne ñëw na nag ci umu aani booba foofu la fanaan ba nga xamee ne fanaan na ci ne umu aani nag ba mu daal di ñëw nag umu aani dooye doomi ndey abi ali na abi talib mu ne ali na mu ne umu aani man day jëpp yi dem naa bayti muqaddis ومعادين كما بقوة بقوة جنين مكري محمد جدي جدا جدا جدا قسم دي نونا خالي من بتايل الله خير واحد من من يوم قبضت الله يبكي مطور ملهم لم تجد الله كما خرجت من جريك ندال في سلخم قد جنة قصدا دي دجل نون بفر أبي تاري لدى أبي جال فندجل أبي جال mu ne ko abi jaaj loo gisati biig mu wax ko ko mu ne ko su ma xooyee Makka da nga ko mu xoo Makka ñëpp ba mu ko waxee wax na ko mu bugg mu wax ko ne dem naa bi bayti mu xadis ah ñëpp waaw xool mu ne na mën a amee na mën a amee nee nañ waa abi Sidna Bakar ndax soo bëgg loolu ñëwaye ko mu ne ko loo wax mu waxaat ko mu ne ko nu nu mel muje ko ɓe andi palan ba palanga lofoɗo palan dane jibril dadi andi palan ba teɗel ko ci kanamam ne ko fiiji waaw lii de waaw fii mooy fi nga xam ne tey mooy buntu sangam fii mooy buntu sangam fii mooy buntu sangam boole tee makka duñ jóge ci mu xadis xanaa kuy wax dëgg kuy tan waañaana ku fi waaye ñun ñëpp fa laa dem ñu ne wax dëgg yàlla day nii la noonu la waxee mu ne man day waaw mu ne ko wax dëgg abi jaan ne ko nga koy dëggal mu ne ko man su ne on dem naa sama mu ne ko dem naa sama aw biig bi gis naa Insa kum gënu ni doot olwatin nu sàkka fi taayib Muusa gis naa ko kum gën a ni doot mooy Omar Ibrahima nag moom man la gën a ni doot kooku mbokk yi wax ak yéen man la man la gën a ni doot xabayaan maa ngoog lu xam mooy li nga xam ne moo xam doomu aadama Baye dafa wax ne yéen di def Baye dafa wax ne mënuma ko mënut ko mënuma ko amuma ko xawma ko mën nañ ko waaye mënu ko amu ko xamu ko maanu ajeeru ko moo wax ak ngeen dégg Baye dafa wax ne mënuma ko xamuma ko xawma ko ni mën na ko wax waaye mënu ko amu ko xamu ko kooku moom maanu ajeeru na wala waaja moom dafa ne waaja foo wax ne kalaamu dawdi yaayi lastu afamuhu li annani ana ana wum humu waaw kalaamu dawdi yaayi waxi wadi man di kuma ko ñoom ñoom man maay man ku maandu woon daal loolu ngay wax taalibi Ibrahima taalibi Alaaji yi daal dëgg dëgg li ñuy wax man xaw ma ko loolu nga waroon a wax waaye daal di ñuy wax du dëgg loolu kenn waru ko wax waaye ee yéen taalibe yi ñun taalibe yi nañ jub sëriñ si nañ jub taalibe yi jub ci chariatu ci lislaam ci diine yàlla yàtt bëgg sarin lislaam liimaan li shaan chariatu tariqatu xaqiqatu noonu lañ ko waxee noonu lañ ko bëggee ku yare yaral ñu jub ku yare yaral yar bu baax ku dégg ko taalibe yi jub koo dem rek te ku دارا تشون وادي دم قوسم يدخل كد أم بدو قوسم داري بي مونة كفي تشيابي في طريق أنا وكلهم في جبنا نمنا قبلي من لما لشراب من خير يروح زمان حقه من لم يكشف بالانبياء mu ne man day fegal naa samay taalibe yoonu coono ñoom ñëpp xam nañ jëf bu ñoom ñëpp bëgg nañ seen diine seen i dëgg bëgg am nañ lañ bëggoon te amuñ coono walam yakun lil axtaabi qabli illa ma al abdi xutbu yu jëkk yi nii amuñ lii nga xam ne moom la ci njaam su xeebu ji Ibrahima am ba askaru at baaxee mu nii dafa naa ka gën a néew daraja ka gën a néew maqaama ka gën a néew daraja am na fannaaw ka gën a gënnam ci samay taalibe mu ne wusulu maa di jamee maasikiina bi abliya xaggal yàlla ci képp yàlla ku gëm yàlla rek xam nga ne loolu am ku gëmul yàlla nag doo ko xam de ma ne gis dëgg taxu koo gëm yàlla mooy may dëgg lii maan yàllaa ko moom kun ko may nga am ko kun ko amul doo ko may doo ko wali yi nag ñii dañ leen leen yare leen xamle leen ñii ñu ne leen denc leen nëbbu leen waaye nag dafa bëri sax kuy si wax sama taalibi sama sëriñ galaa fiñ tuubaa fiñ tuubaa mbakke mbakke mbakke sa digganteeg mbakke xem na ni fukki dund ak ñaar yoo xam ne na nga dox si diggante waajaxe naa tiwaawan tiwaawan tiwaawan te ka diggante nag tiwaawan mën na fukki dund ak ñaar diggante bay la jimaali dara la xamul ci moom dara la fa xamul xamul fa dara ah kay déglu ne bay la jimaali wax ca pêche bi xaqiqatul kawni xaynu shaati طلعته إرادة الله عين الله يا الله balaa ji mare ko ko waji tay jeen mu ne yonent mooy bëgg dëgg mbindee fi xay na laay mooy jëmi yàlla ihaadatullahi mooy bëgg yàlla xaqul bare mooy xaq yàlla ma nga yow xaqiqatu moom di ci xam ko ba dee taaliba ba di weddi ku xam xaqatu moom bi kaw teewle yaa ko soree waaja loo ci man خبرتم انه يروح بعينه إيه. مرحبا بثقتي جانا منان بخدوم لكونه معقول بخدوم لكونه

ஆகவே Let us all have asked Ha ha ha ha ha ha برهاء nga gaañu wuñ ko bu ko waxal bàyyi mu àgg lu dara dama sorofal ngeen di sor حين تتمن الحلالة دارا قال يأتي لنا من سابحا تنفعه المناء بالخميس أقرشاو ما العمل فيه يا يمين لقد ما صنعه خلقه kalbi Seni avredere nişe يؤخذون أحدهم وقيل القلق حضرة القدس قلبي من جير المصطفى فمني Saturday خالق فخري أنتم من داء القلوب أنتم وأنتم kuma da farado gado mun